ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي ñu ngi dalal Serigne Diawer Cissé ci délégation bu Jaamal Serigne bi ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay fay sang bi ngi leen di nuyu baax di leen ziar bu baax di rafetlu ñëw gi ngeen ñëw fii fekk fi délégation jaamal délégation bi nag euh, comme ni ngeen ko waxee sëñ Omar Cissé di rakku xalifa bi moom moo ko jiite ànd ak euh, sëriñ Moustapha Cissé euh, topp si imam bi moo ko moo si topp ak sëriñ As Cissé di doomu xalifa bi ak sëriñ Alhaaji Cissé ak man ndonga lii di wax ak yéen di Jabel Cissé ñu jógee ko si dëkk ba bale nga xam ne moom moo di jaamal nekk dëkk boo xam ne comme xam naa dinañ si ñëw si biir waxtaan bi moom ak jaamal moom ak euh, Touba seen relation euh, lu yàgg-yàgg la si jamonoy mag ña bu defee relation boobu nag euh, ak mbokk googu ak diine jooju nga xam ne moom la ñu seq ak waa tuubaa moo tax at mu jot rek sëriñ bi daal di yónnee délégation bu am solo ñu daal di ñëw fii Euh, bokk ak euh, kilifa yi màggal gi waaye bokk ak ñoom cant gi nga xam ne moom la Serigne Touba woote ba màggal gi jeex bu ko defee ñu daal di ñaanalante ba beneen yoon fa tabaarakallaahu mbooloo maa ngi nii délégation bu mag jógee jaamal niñ ko daan defee at yëpp rek noonu lañ ko defee ren tabaarakallaahu waaw ku nekk xam nañu màggal gu ren gi na ak yëf daan am ndax dafa am ci contexte bu xaw a doy waar muy mbas mii di Covid 19 waaye loolu terewul ngeen ñëw feddali seen kóllëre ak sëriñ bi loolu day Touba ak Jaamaal diggante bu dëgër la bu yàgg la tamit. waaw loolu moom lu ama am solo sax euh, nit ki moom su ngeen di ànd si jamono buy neex su ngeen demee ba xaw a yëg lu xaw a naqari tamit ànd gi dafa war a continuer euh, comme ni ma ko junjee si njëlbeenu wax rek euh, xam naa ma jaaral leen tuuti si histoire bi diggante Jaamal ak tuubaa si jamonoy Maam Mor Anta la woon ak borom Jaamal. waaye itam bu ngeen xoolee njabootu Touba gi tamit bari na ñoo xam ne jaar nañ si daara jële nga xam ne mooy daara jaamal ji moo xam daara ju njëkk ji la wala daara ju mujj ji su ma waxee daara ju njëkk ji mooy Kajoor jàpp fële waalo nga xam ne mooy Saint-Louis ku nekk xam ne ne borom gaawaan maam Cheikh Anta borom jaamal doon na ko jàngal comme ni nga xamee ne borom jaamal nekkoon na si daaray papaam di maam Mor euh, Anta Sali kon fa tabaarakallaahu relation la boo xam ne bu yàgg la. Euh, tey bu ñu xoolee ku mel ni Serigne Mohamed euh, Baara Fàllilu moom tamit jaar na jaamal ak ñeneen ak ñeneen si njaboot gi loolu day wane na jaamal ak euh, Touba seen ñaari écoles yi benn la dañoo yàgg di dem lante di ñëw lante bu ko defee nag relation boobu nga xam ne moo amoon depuis jamonoy mag ñi ba léegi relation boobu ba léegi moom la ñu continuer di ko sàmm ba tax na comme que mbas mi léegi gis nañ ne wàññeeku na. te it matuwaay yi nga xam ne moom lañ si war a jël yëpp joxe nañ ko sëriñ bi joxe si ndigal bu ko defee moo tax ñu ànd ak euh, délégation bi xalifa euh, jaamal di sëriñ Moodu Maam yebal ñu ñëw ànd ak euh, mbokk yëpp ñëw bokk ak sëñ Murtala sëñ Muntaxa li nga xam ne mooy bis bu mag bi nga xam ne moom la sëñ Touba woote ne nañ ko si santal boromam mooy bis boobu nga xam ne si la génne woon doon dem di jaamaarloo ak ay noonam mooy bisu samedi comme ni ngeen ko xamee tombee ak fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar xarajtu yowma sabti thamina asar euh, li xidmatil moxtaari fii soxri safar yaakaar naa loolu sëñ bi moom moo ko bindal boppam kon fa tabarakallahu relation diggante jaamal ak euh, Touba relation diina la mais relation mbokk la waaye relation itam dëkkandoor la waaye relation xam-xam la itam euh, bu ngeen xoolee jaamal dafa nekk daara joo xam ne daara ju ju yàgg la joo xam ne yaakaar naa réew mi yëpp xam nañ ko waaye Touba itam ku leen xam rek si si si daara ak njàng ak njàngale ak yar si lañ leen xamee même méthode boobu boo demee jaamal loolu nga fay fekk bu ko defee nag comme que yu baax yëpp ñoo bokk euh, moo tax euh, ñuy dem lante di di dikkalante loolu nag dañuy feddale lu amoon lu amoon daaw wala lu amoon bërki démb moom la ñuy feddale ba léegi Euh, comme ni ko alxuraan diglee rek wa aw awfu bil ahdi innal ahda kaana masulan lii ak kóllëre la goo xam ne bu ëllëgee suñ borom daf koy laaj moo tax kóllëre gi dañoo war toujours di ko beesal mais ñi ko façon waruñ fay jógee koo rek ñu daal di koy ñu daal di koy arrêté kon fa tabaarakallaahu loolu si la ñu sukkandiku ak li alquran wax ne yaa ayyuhal lazina aamanu istajibu lillahi wa li rasuli isaa daakum li maa yuxyikum kon bu ko defee lii nii li maa yuxyikum la ndax ku xam màggal xam ne bisu bernde la waaye bis la boo xam ne itam dañ fi organiser ay conférence yu am solo yoo xam ne daayira bi di Rawdu Rayaahin yaakaar naa ñu sosoon ko 2005 tombeek jamonoy xalifa euh, Serigne Saliou Mbacké euh, si ndigalam si lañ ko sosoon ku nekk xam ne dañ fi organiser ay ay ay ay cérémonie ay waxtaan ay muxaadaraat yu am solo yoo xam ne dañ ko fiy def bu ko defee yooyu yëpp bu ñu xoolee màggal gi day gis ne ni muy participer aussi wàllu yaramu doomu aadama noonu lay participer wu itam si wàllu ruuxam euh, kon dañuy jox xam dañuy joxe xam-xam waaye dañuy joxe bernde ku nekk xam ne ne cant ñaari façon la sëñ Tuubaa cant gi mu woote ñuy wax cant cant ak làmmiñ dafa am mais cant ak jëf dafa am cant ak làmmiñ mooy alhamdulilah boroom xam-xam yi dañuy wax ne alhamdulilah euh, ku si sant ku si sax aljana la la jëmee ndax alhamdulilah boo ko calculé chiffre yi juróom-ñetti xaraf la lay jox juróom-ñetti xaraf yooyu nag boo calculé buntu aljana yi itam juróom-ñett la kon nag boo si saxee rek aljana la la jëmee mais am na cant goo xam ne cant ak jëf la mooy i'malu aala daawuda shukran bu ko defee cant ak jëf gi nag euh, jaamu yàlla si la boo ko ay julleeg woor a si aju mais ganale ay gan ay bernde comme niñ koy defee fa tabaarakallaahu si la si la si la bokk tamit euh, kon si loolu santale sëriñ bi ndam li nga xam ne suñ borom jox na ko si gannaaw coono gannaaw ay méttit yu méttee métti yoo xam ne daj na ko si biti bu ko defee si loolu ah si lañ ñëw ak cant nag ku si woon nit woo nga ko si jaamu yàlla te ab jullit ko ko woo si jaamu yàlla dalay wuyu moo tax fa tabaarakallaahu ñu ñëw oh, fekk si leen si bis bi nga xam ne bis bu am solo la rawatina si yoon wi nga xam ne moo di yoonu murit mu nekk yoon woo xam ne sëñ Touba oh, yàgg na ko ubbi nekk na yoon boo xam ne tëjuwut parce que li mu wax si masaalikul jinaan wax ju wax ju leer la parce que fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi falan yaxiida sawaun intama ila al jaylaani aw intama li ahmada tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi que is kulluhum qataan ala sawaabi ñoom ñëpp si njub lañ nekk kon bépp wirda boo jàpp rek fonk ko rek si yàlla la la jëmee moo xam foo mën a jàpp kon kooku moom wax dëgg yàlla wane na ak ubbeeku waaye itam wane na itam nangul ñëpp parce que suñ borom ay cëram dafa yaatu cër yi muy sedd di ko maye dafa bari bu ko defee nag mag ñu baax ñi ku si nekk rek am na lu la yàlla may sëñ Tuubaa moom ku teel a nangul mag ñu baax ñi seen ak may la moo tax ak mayam ñu bari e, gis nañ ko teg nañ ko bët e, boo nangulee nit ñi rek suñ borom tamit dalay kii wala boo nangulee suñ borom rek nit ñi dañ lay nangul kon fa tabaarakallaahu e, sëriñ bi moom ay mbiram dafa leer nañ ñi amul si lenn loo xam ne lu lu lu lëndëm la fa tabaarakallah dégg nañ ko ci sa biir wax ngay junj ndigal yi Sëriñ Muntaxa joxe Sëriñ taxaa bi mu wote màggal gi mu xam ne ci jamonoy coronavirus la dafa wax ne kuy ñëw na sàmmante ak mesure barrière yi mel ni kii takk masque ak euh, raxasu wala laal gel ak distanciation bi loolu bi nga dikkee nga seetlu ko Touba boo dugg ci jumaa ji wala même boo dugg ci kër gi sax boo gisee loolu ban réaction nga ci am nga xam ne taalibe noonu lañ jëfee bi. waa xam nga boo xoolee. symbole dafa bokk ci symbole murit mooy ndigal jëfee loolu moom suñu seen symbole la boo xam ne ñëpp xam nañ ko kon nag euh, bu fekkee sëriñ bi santaane na nañ takk masque après taalibe yi takk ko ñoom def nañ li ñu war a def waaw kon def nañ li ñu war a def ah li si des nag euh, ñu bàyyi ko si si ci loxol yàlla di ñaan yàlla mbas mi nga xam ne moom moo fi ñëw suñ borom dal di koy yëkkati sànni ko fa fa mu gën a sore mu bañ ñëwaat kon bu ko defee loolu moom ñu ngi koy ñu ngi koy ñaan euh, xalifa général bu jaamal mi ngi koy ñaan euh, ñëpp kilifa yëpp ñu ngi koy ñaan daal fa tabaarakallaahu euh, en tout cas li ñu gis daal dal na dal na xel parce que gis nañ ne taala bi yëpp ñu ngi sàmmuwante ak masque yi wax dëgg yàlla loolu itam lu am solo la parce que itam fagaru dañoo wax ne moom moo gën moo gën faju al wiqaayatu xayrun min al ilaaj yaakaar naa loolu la loolu la arab wax kon fa tabaarakallaahu loolu moom dañ koy rafetlu bu baax a baax ñu ngi koy rafetlu bu baax la ngay tàggoo ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci GMT TV. waaw di leen sant di leen gërëm di rafetlu màggal gi di wax ne eh, sant cant lu am solo la si dundu doomu aadama parce que ak cant moom ak dollar rek la bu ko defee ñi nga xam ne ñooy faral di ñëw Touba di fi màggal si yaakaar naa am nañ ak cellu cellu goo xam ne at mu ñu ñëw rek bi si topp dañuy gis ne ña leen doon defal dañuy gën a mën a def lañ doon def loolu nag lu ko waral mooy ak cant yàlla daf koo wax te ba mu koy wax daf koo affirmer mooy wax ji suñu borom daf koo dëgëral la in shakartum la in shakartum la azidannakum gis nga fa indi laamu kiit dëgëral wax ji bu mu dëgër wane ne saa parce que mënoon na indi rek su ngeen ma santee rek ma doole leen mais dafa ne gëñ naa ne bu ngeen ma santee dinaa leen dolli ba pare indi nuunu kiit si mujjanteelu mujjanteelu wax ji kon loolu itam lu am solo la yàlla li muy wax ba di ko dëgëral rek wax jooju du dëñ kon fa tabaarakallaahu hmm, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax euh, bam ñu boolee si si xéwal gi nga xam ne jaamu yàlla la ah, di wax suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu seetal seetaan euh, ni jouru màggal moom li si nekk warteefu ab euh, murit ñetti mbir la comme ni ñu koy waxee benn bi mooy cant benn bi mooy jaamu yàlla beneen bi mooy bernde kon fa tabaarakallaahu te it yaakaar naa ne loolu yëpp gis nañ ko fi jouru màggal buñ xëyee alxuraan ji ñuy jàng xasida ji ñuy jàng loolu jaamu yàlla la tudd yàlla la wala zikrullahi akbar beneen bi tamit gis ngeen bernde yi comme ni ko yent bi alayhi salaatu wasalaam diglee man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfahu yaakaar naa loolu la ak wa yutimuuna taama ala hubbihi miskinan yaakaar naa li ngeen di joxe yéen a ko gën a bëgg ñi ngeen koy jox waaye nag al la yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa loolu jikkoy saxaaba yi alayhimu salaatu wasalaam lañ kon fa tabaarakallaahu ñu ngi sant bu baax di gërëm di jéggulu si kàddu yi itam kàddu yi kilifa rek xam nga ay kilifa moom boo àndeek ñoom ñu jox la kàddu da nab nabi rek donte li ñuy wax xamuñu ko waaye ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm euh, di wax ne lii ay tànki kanam la ndaxte suñ bo euh, sëriñ bi fi ko jaarale moo tax jaamu yàlla gi fi mu ko jaarale moo tax toujours day gën di day gën di yokk parce que mooy cant euh, liñ si wax comme niñ ko waxee si aaya ji passé euh, ñi ngi sant bu baax di gërëm di rafetlu itam seen seen liggéey fa tabarakallah wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi